Thank you. alors salaamaaleykum euh, chers amis internautes Mbour News euh, yéen ñiy seetaan waa dañoo doon dem nag après ci lañ ñëw yem ci cas bi euh, ni ngeen ko gisee waa jooju ma doon filmer moom laa doon jël pour ma mën a wax ak yéen mais nee na xolam dafa tooy mënul expliquer. Mhm. waaw je vous disais que bi nga xamante ni moom ñëw na euh, ba toll fii nee na d'après ni mu ñu nee na euh, mënul wax ndax xolam dafa tooy après ci la euh, ñi nga xamante ni ñoom la booy ñett ñoom ñetti oto la ñoon bi ñuy romb léegi nag bi oto bi ne ci kanam moo tëb te freiné nee na mu dal ci kawam bi mu dalee ci kawam nag ci la booy ñëw daal di taal ci kaw tali bi léegi nee na nag moom mënul woon a tëb tëb tàkk xam naa mënul woon a taalal oto bi après ci la ko booy nee ubbi oto bi d'après sa version des faits nee na noonu la mbir yi demee ah, jéem nañ koo jox kàddu pour mu wax def si témoignage mais noonu nee na moom instant yi xolam dafa fees ah, mënul wax su waxee ah, boo saaganee mën na jooy ci écran bi du ko du ko mën mais d'après ne noonu la amee nee na xale yi dañoo ñëw di taal ñoo nekk ñett oto toppalante biñ ñëwee après benn oto bi freiné nee na moom bi mu freiné sax daal na ci beneen oto bi après ci la benn oto bi daw moom nag mënatul a tàkk nee na xale yi ci lañ ubbee oto bi taal kon loolu mooy li nga xamante ni mooy euh, fee bi ñu tombante fii nga xamante ni mooy ci autoroute à péage bi ci entrée bi euh, vers euh, Cambérène kon loolu mooy li fi xew mais gis ni ngeen ko gisee nii aussi gendarmerie dégagé na voie bi ba léegi circulation bi sapeur a ngi nii di yegg si sapeur mooy noonu di doog a yegg si ñëw liggéey bi nga xamante ni déjà force de défense et de kon euh, chers amis internautes Mbour News loolu mooy li nga xamante ni moo fi xew fii ci entrepéage bi nga xamante ni mooy euh, jëm Cambérène